bonjour asalaamaaleykum sama gars yi voilà j'espère que yéen a ngi ci jàmm maa aussi man it maa ngi si jàmm voilà dal jàmm seen seen like mobile votre chaîne de technologie voilà tey euh, dañu andil benn astuce bu am important boo xam ne voilà yaakaar na ñi nga xam ne dañoo nekk responsable euh, voilà ñi nga xam ne dañu yor seen doom wala ñu yor euh, yor seen i soxna voilà dinañ ko man a soxla voilà sans plus tarder ñu leen demande bu fekk ne bi mooy première fois bi ngay dugg si seen like mobile voilà ñu ngi lay demandé nga bës si bouton abonné bi daal di aimer bi voilà loolu dina tax vidéo boo xam ne dugal nañ ko rek euh, di nga bokk si ñu koy njëkk a gis voilà tey asbilal mooy muy nag ngay def ba contrôler sa téléphone doom wala sa téléphone jabar voilà dafa temps yi dañoo euh, dañoo dañoo toll boo xam ne euh, parfois mën nga yor sa sa sa sa doom mu nekk si téléphone voilà di def lu ko neex euh, parfois parfois te yow doo si xam dara mën nga nekk sa liggéey bi te yow doo tal nekk di contrôler talam voilà tey dinaa leen jox benn astuce boo xam ne di nga mën a con di nga mën a toog fi nga toog di contrôler sa téléphone doom voilà te du am benn problème voilà léegi première fois bi ñu def mooy da ngay dugg sa Play Store voilà léegi ñu dugg suñu Play Store voilà léegi ñu dem sa barre de recherche bi voilà léegi lan lañu tàppe mooy contrôle parental voilà moom moom lañu moom lañu tàppe voilà léegi ñu def contrôle parental voilà léegi mooy deuxième euh, mooy mooy deuxième application bi voilà léegi contrôle parental euh, muy nii voilà léegi dinaa leen defal lien d' application bi si première description bi boo ko voilà léegi di nga mën a dem directement si application bi pour nga mën ko télécharger euh, voilà pour ñi nga xam ne xam euh, mën nañ ko di dugg mais duñ ko gis voilà léegi nag dañuy cliquer ouvrir comme que ñu dañ ko télécharger ba pare voilà boo cliquer ouvrir fii la lay indil voilà léegi premièrement bi da lay defal continuer wala mu defal suivant nag boo def c'est la même chose voilà comme que bii mooy suñu euh, bii mooy téléphone parent mooy bii mooy téléphone ki nga xam ne moom moo bëgg a contrôler téléphone doomam voilà dañuy cliquer parent voilà voilà comme que amago compte léegi da ngay dem enregistrement pour créer sa compte bopp yow voilà léegi boo demee enregistrement léegi euh, nom bi voilà léegi nga def sa tur yow voilà li ñun dañuy def dañuy def like voilà léegi ñu def suñu adresse email def suñu mot de passe voilà léegi nga def euh, enregistré voilà léegi fii dalay laaj benn code voilà ñun mën nañu dugal suñu benn code un deux trois voilà léegi code bi nag heure boo dugg si application bi rek code boobu la lay laaj voilà pour ngeen jàpp ko baax voilà léegi mën na bës ok bi may téléphone parent bi voilà ma ma waxaal leen ko voilà mooy téléphone parent bi moo bëgg a contrôler téléphone doomam voilà. voilà léegi léegi téléphone parent bi pare na léegi naka lañ def mooy dañ dem si téléphone euh, téléphone doom ji voilà léegi parent bi pare na léegi dañ dem si téléphone doom voilà léegi téléphone doom ji mu ngi nii moom it c'est la même chose da ngay télécharge voilà léegi boo ko téléchargé ba pare dangay dem def bés ouvrir voilà léegi boo jëlee sa téléphone doom nga tel télécharge application bi voilà ba pare léegi nag ngay def mooy euh, da ngay dem bés ouvrir comme que télécharge nga application ba pare. voilà léegi boo tel télécharge application bi comme premier fois bi mu lay fee moom lay indilaat voilà parfois da lay indil suivant wala mu indil euh, continue voilà léegi ñu bës euh, bleu bi voilà pour mën a pour mën a continuer. voilà léegi bële dañoo defoon parent bii dañuy def enfant parce que bi mooy tëloon enfant bi voilà euh, bële bële dalaa laajoon nga créer compte comme que bi keree nga compte ba pare léegi yow da ngay def compte bi nga créé woon fee maam email bi nga defoon fee moom ngay dugal fii ak mot passe bi pour compte yi mën a lëkkale compte yi mën a doon benn voilà mais boo keree waate rek day doon beneen compte voilà léegi nañ dugal email bi ñu dugaloon ak suñu mot voilà léegi nañ dugal email bi nañ dugal suñu mot de passe voilà comme que créé nañ fële ba compte ba pare rek fii jër ñu créé waat compte compte bi ñu créé fee moom lañ dugalaat léegi ñu dugal suñu mot de passe voilà léegi mën nañoo def se connect voilà l' adresse email erreur voilà léegi l' adresse moom moom moom moom erreur voilà bële dañoo defoon. voilà ñu lay wax bu dee l'adresse email bi nga defoon fële ak fii boo bokkut maam dëppawut voilà moom boo defee automatiquement da lay détecté wax ne adresse email bi nga defoon euh, ak ak bi euh, maam nuróowun voilà voilà léegi ñu ba tey léegi dugal nañ suñ euh, adresse email ba pare voilà léegi mën nañu rek continuer voilà voilà léegi ñu xaar mu recharger voilà léegi automatiquement bu recharger euh, da lay laaj benn non voilà ma maam nga def tur enfant bi voilà léegi turu bële turu parent bi benn lañ defoon muy like léegi turu enfant bi léegi mën nañu def mobile rek voilà léegi turu enfant bi ñu def mobile. voilà léegi turu enfant bi dañuy def mobile. voilà léegi bële ban collège lañ si defoon muy un deux trois quatre c'est la même chose moom la ñuy defaat fii voilà. voilà léegi bu defee pare léegi mu ne la commencer de la configuration léegi dangay ngay bës euh, vert pour commencer la configuration bi voilà léegi mboolem euh, lu mu la laaj fii rek da nga koy autoriser maam nga compte euh, nga nga nga nga maam voilà nga autoriser ko pour mën am accès si application voilà léegi nañ autoriser ñu dem photo voilà ñu dem autoriser. suivant voilà ñu autorisé voilà autorisé kàddu yoo ma la wax da nga da il faut que da ngay autorisé kàddu yëpp voilà pour permettre mën a continuer voilà léegi mën nañu ba cliquer permettre voilà léegi ñun après bu ñu cliquer euh, permettre voilà waaw ñu def service install moom lañu ñu voilà léegi service install bu bu bu tëjee ko dañuy dem contrôle parental voilà ñu mën koo autoriser moom it voilà ñu cliquer waat paramètre voilà ñu cliquer waat paramètre ñu xaar paramètre date voilà léegi dañ dem euh, si application bi euh, contrôle parental moo nekk ni si ko voilà léegi dañ koy cliquer voilà ñu bës autoriser voilà ñu def euh, paramètre voilà ñu def activer voilà léegi mën nañu cliquer suivant voilà léegi ñu doon activer contrôle parental voilà voilà ñu dem euh, autoriser voilà léegi ñu def paramètre léegi ñu demaat contrôle parental voilà léegi ñu autoriser waat ko voilà ñu bësaat paramètre autoriser voilà léegi euh, paramètre bi man na euh, voilà léegi ban lañu def mooy dañuy cliquer effectuer voilà effectuer léegi moom la ñu cliquer voilà léegi automatiquement sa téléphone doom ji nga xam ne euh, sa tel bi nga xam ne moom nga bëgg a contrôler voilà léegi may léegi paramètre bi pare na voilà léegi voilà léegi yéen a ngi gisandoo léegi tur bi may nii muy mobile voilà mobile léegi mooy sa tour doom ji nga xam ne moom nga bëgg a contrôler téléphone voilà. voilà léegi voilà ñu demaat suñ suñu téléphone ñu téléphone parent bi voilà ñu xam te jóg voilà léegi automatiquement dala koy détecteel sa turu doom yi nga xam ne moom nga bëgg contrôler téléphone am moo ngi nii voilà muy mobile léegi yow bu doon da nga bind mobile ba pare nga bëgg changé changer tur bi voilà léegi da ngay dem trois euh, trois points yi nekk à droite voilà nga cliquer ko voilà comme que yow da nga def tur ba pare mais tur yu neexu la mën nga ko changer nga dem compte léegi ñu dem compte léegi. turu euh, parent bi moo nekk si kaw muy like turu enfant bi moo nekk suuf muy euh, mobile voilà léegi boo ko bëggee changer automatiquement delloo ko changer comme que ñun bëgg ñu ko changer moo tax dañuy def retour. voilà léegi ñu dugal application bi voilà application bi nag heure boo duggee code bi da la koy laajaat pour ngeen jàpp ko ba voilà euh, bi mooy sa tur enfant bi nga xam ne moom nga bëgg a contrôler téléphone fi ne nii yow téléphone mobile bi moo nekk ma ma ngi si yow fi ne nii comme noonu laa ko mën a waxee rek voilà bu dee yow danga nga toog ba mu yàgg sa doom ji maam da war war na jàngi jàngul ay leçon voilà léegi nga bëgg a tëj application yëpp ba du mën a euh, dugg benn application lu du Google bi nga xam ne mën naa di si def def ay exercice am voilà exemple rek laay joxe rek voilà léegi mën nga tëj bépp application boo xam ne rek maa ngi si téléphone pour mu bañ a pour mu jàng ay leçons voilà noonu laa noonu laa ko mën a waxee rek voilà pour def noonu nag nga tëj application bépp application xam ne dafa nekk si sa téléphone doom da ngay bës euh, mobile mooy sa tur doom voilà léegi euh, pour lii yëpp détails bu ñu la gën ex bu ñu leen ko bëgg expliquer voilà man na man man na jël temps léegi ñun bu ñu intéressé mooy dañoo bëgg a tëj application yu nekk si téléphone yëpp yoo xam ne bu koy utiliser rek bu ko faree utiliser mën na di bañ a jàng ay leçon voilà léegi dañuy bës vi euh, viré voilà voilà ñu activé voilà léegi boo activé da da da leen di si liste blanche léegi da ngay tourné dem si viré voilà. voilà léegi boo cliquer verrouiller léegi rouge bii nii mooy verrouiller de téléphone léegi da nga koy cliquer voilà léegi boo cliquer automatiquement nee na la le téléphone a été bloqué maanaam téléphone bi bloqué na ko léegi naka lañ def boo xool maanaam bloqué na ko day demaat suñu téléphone doom ji voilà téléphone enfant bi voilà léegi ñu dugg Play Store voilà léegi ñu dugg Play Store voilà automatiquement boo duggee Play Store di nga gis ne téléphone bi mënut a dugg Play voilà léegi ñu dem dugg Facebook. voilà léegi automatiquement da nga gis ne Facebook bi bloqué na ko munu see dugg voilà léegi moom fan lañ mën a dugg moo fi nga xam ne man na may Google Google kese la mën a dugg pour euh, voilà man na fee man Google la mën a dugg yi nga xam ne mën na fi dafa ay exigence mais bépp navigateur boo xam ne dafay dafay seeraan ay ay vidéo rek du fa mën a duggati voilà léegi yow da ko bëgg a dindi da ngay duggaat si sa téléphone mobile euh, voilà doom yi voilà léegi nga def déconnecté voilà boo xoolee su am na fu ñu la bindal déconnecté à l'appareil voilà bu dee da nga toog ba jëmi jamono nga bëgg koo dindi voilà léegi boo defee déconnecté automatiquement la ngeen gis mobile bi daal di effacé wu na si sa téléphone voilà léegi yéen a ngay gisoon léegi mobile bi effacé wu sa téléphone maanaam euh, léegi bu ñu duggaale si application bi voilà ñu dugg Play voilà léegi da ngay gis ne Play bi ma ngi commencé waat di def comme nam naa def ma ngi dox léegi voilà léegi bu ñu duggaatee Facebook voilà da ngeen gis ne Facebook ma ngi daan dox carrément comme na mu daan doxee voilà léegi nag après bu dee da nga toog ba jëm jamono nga bëgg ko defaat rek c'est la même chose yoon bi nga jaaroon fa ngay jaaraat euh, pour. man koo def euh, comme na nga ko defee woon la fois passée voilà léegi loolu moo doon vidéo bi ñu leen jox rendez-vous di leen jox dig daje si beneen astuce ak si beneen vidéo ak like mobile voilà sama gars yi jaa jëf.